bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen ak yeneen. oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di plus 1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mën mënti bëgg si njëg bu xéewalee lool Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna. di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm ci bés de la semaine comme nuñ ko tàmm di defee chaque samedi ñu si ànd ak mbégte ak ca waxte di si jànnoog yéen ci weeru mars bi la ñu annoncé vaccin anti Covid yu njëkk yi ci suñu réew yi di si suñu réew mi di Sénégal sénégalais yi nag dañoo bëgg ki nga xamante ni nii moo yor jamono ji pouvoir bi si ay loxoom njëkk a ñàkku ngir peuple bi wóolu ko Macky Sall mënu la def neneen lu dul lu njiitu réewu turc di Tayyip na ba ñu ba mu ñàkk ah, ci lii di Covid 19 bi alxames ci kanamu caméra wu télévision yi ñëpp teg ci seen ay gët ah, di la nga xamante ne nii day dindi xel ñaar gi nga xamante ne nii askan wi ñu ngi koy am ci lii di ñàkk yi di la nga xamante ne nii ku yor kàddu ba eh, parti eh, kii di Tayyip Erdogan moo ko xamle eh, gannaaw Macky Sall fii si Sénégal jëwriñ bu ñu dënk wàllu mbir gu yaram bi di Abdoulaye Diouf Sarr moo ci toppandi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi moom moomii Abdoulaye Diouf Sarr nee na pare na ngir nekk ñaareelu sénégalais bu ñuy ñàkk gannaaw boosam bii di njiitu réew mi Macky Sall. Mbaye Pekh daal dinay àddu ci vaccin wu Covid 19 bi moom nag nee na pare na ngir ndax te ñàkk moo fi jëlee ngas jëlee fi njàmbetaan ak xure te yooyu lay feebar def na lu yàgg kenn dëggatu ko ba loolu weexoon weesoo nag Mbaye Pekh nee na nangu na ñu njëkk leen ñàkk ndax géwél du daw te du mës arrière te liy lor nit ñi eh, yaakaar na ni njiitu réew mi Macky Sall du ko fi indi ndax su faatee nit ñi ana kon ñan ñoo koy fal eh, si lu ñenn ñi naan njiiti réew mi njëkk ñàkku ba noppi eh, kii di mbay peex la mu ci xamle moo di rek ba mbas mi amee daal Macky Sall moo ñu jàngal nu ñuy raxasoo ba tax na bu ñakk wi ñëwee it ñu nekk si 4 x yi nañu leen njëkk vacciné Serigne Babacar Sy Mansour di xalif général des Tidiane daal dinay am am lu mu diglewaat moom it ci li nga xamante ne nii moo di mbas mi di coronavirus bi gannaaw ba mu si defaatee déclaration xalif bi nag nee na pandémie bi yàlla moo ko fi wàccee ba tax muy woo askan wi ngir ñu amal ay ñaan tuub génne it ay sarax ba loolu weesu tamit sénégalais yi ngir ñu jëfee li nga xamante ne moom la autorité sanitaire yi digle si noonu mu ne képp kuy borom kër ak képp ku ko mën na génnee sarax lu tollook kilo ceeb kilo suukar ak liit litre diwlin eh, bu ñu si noppee ñu jàpp julli ñaari rakk eh, def téeméer ak fukk ak benn astafurlah téeméer ak fukk ak benn eh, salaatul alal nabi téeméer fukk ak benn yaakaafi def juróom-ñeenti téeméer ak ñetti yàlla tiifu benn surat al ixlaas benn suraat al falak ak benn surat an naasi salaatul al nabi aussi ñu def si benn su weesoo loolu nee na ñu toog lu tolloog benn waxtu laata ñuy guux ndox bu ñu ko yite vidéo euh, mu joxe ko euh, ki nga xamante ne ni moo di xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour euh, ba tey ci xalifa général des Tidianes baba Babacar Sy Mansour lay des ak yéen waaye bi la yoon si borom ñaari tur yi gannaaw ba mu si yàddoo moom nag lancé na message ña nga xamante ne ni ñoo di député yi daal leen xamal ne du si wax lu bëri waaye nañu xam ne projet de loi boo mënti voté bu ëllëgee danga ko layoo ak suñu borom ndax dina leen laaj Euh, ay compte ci lépp la nga xamante ne ni ñu ngi koy def tey jii mu xamal leen ko moom xalifa général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour maddu jëmale ci li nga xamante ne ni mooy di lu doy waar la ñu jot ci génn àdduna ba kii di Serigne Abdou Aziz Sy ibn Serigne Moustapha Sy Djamil gannaaw ba mu amee lu làkku ci ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu ñu jot Serigne Abdou Aziz si doomam bu góor bu ay atam toll si ñaar fukk ak juróom-ñett moo ko faat laata muy daw waaye police mujjee na ko teg loxo niki talaata bale ñu génn si kanamu enquêteur yi nag mi ngi doon jéem expliqué lu waral mu fàtte waajuram boobee bu ñu sukkandiku ci moom considéré wuñu ko ci famille bi ci anam bi nga xamante ne nii moom la waree ba ñu teewloo waajuram bu jigéen moom dafa avancé tes autres ba la si maanaam xel mi dafa des. ba tey rek ci meurtre Serigne Abdoul Aziz Sy Jamil bi ñu teg ko loxo ba noppi placé ko en garde à vue depuis talaata ngir lu mu faat waajuram bu góor MC ay atam toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett ci àjjuma ji di niki démb fukki fan ak juróom si weeru janvier la ñu ko defeere parquet bu Dakar lu ñeel nag lu yenn lu ñenn ñi di wax si jege ñaale yi ne moom moomee xel mi dafa des te sax interne woon nañu ko. hôpital euh, Fann ay élément wu commissaire Sankharé euh, dañuy xaarandi document yuy firnde la euh, loolee ñu xamle ñu tegee ko loxo ca quartier Dakar waa bii di Baobab ba mu defee jëf ju ñaaw ji ba si ëllëg sa MC daal dinay xamle ni famille bi considéré wuñu ko te ay kàddoom dañu koy sofantal ci waxtu bu ñuy xaarandi nag lu si toppandi si li nga xamante ni moom la koy toppee certificat genre de bi daa firndeel ni góom yi mu am ci thorax tabaski bi euh, moo sabab hémorragie bu rëy ba ki nga xamante ne nii euh, moo di Serigne Abdoul Aziz Sy Djamil si bakkanam li ni mel nag arme blanche la ko dal defee ba tey ci El Hadji Malick Sy mu ñu teg loxo ngir lu mu faat waajuram bu góor di Serigne Abdoul Aziz Sy ibn Serigne Moustapha Sy Djamil moom moom ne nag daal dinay dikkaat si naka la faate waajuram boobee ak lu xewoon bés boobee yëpp yemoo woon naka fukki fan ak benn ci weeru janvier nga xamante ne moom moomee Malick Sy dafa fa demoon di mer ba futtu di laaj li nga xamante ne nii moom mooy koppar ngir ñu jox ko ko si noonu la waajuram bu góor intervenir di koy waxal waaye mbir yi Eh, dafa gaaw lool eh, moom nag eh, mu faat waajuram bi lu mu xamal enquêteurs yi moo di waajuram moo ko njëkk attaqué moom deful lu dul daal di défendre boppam El Hadji Malick Sy daal dinay wax tamit ne ba muy joteek waajuram bu góor la for benn paaka paaka boobee sax la ko bojj waajuram dal di daanu gannaaw ba mu ko laalee ci thorax mu ñàkk fa deret gu bëri laata muy ñàkk bakkanam si noonee mu dal di tiit sànni fa paaka ba dal di daw laata ñu koy teg loxo ñu daal di koy euh, yëgal ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum paj ñu ñëw fa waaye boobee euh, fekk nañu Serigne Abdoul Aziz Sy Serigne Moustapha Sy Djamil ñàkk bakkanam ba noppi euh, police tamit yëgal nañu leen ko waa sûreté urbaine ak seen collègue yu nekk police technique ak scientifique ñëwoon nañu foofee nga xamante fa la crime bi amoon si noonu la ñu jëlee néew bi daal di koy yóbbu ca hôpital Dantec leneen mbirum kuy woote yónnent ca Kolda di Baba Mala Mbacké Ruuxu mu ñu tuumal wàllum détournement de mineur dëgg bi ci médecin gynécologue bi lay bàyyee ko enquêteurs yi daal di dañuy solliciter service gynécologie ngir leeral wàllum détournement de mineur ak viol boobee nga xamante ni ëmb cee juddu bu ñuy tuumal ki nga xamante ni mooy woote yónnent ca Kolda résultat gynécologique yooyee nag moo mën a tax ñu am lu leer si ba xam ndax moo def lu ñu koy koy tuumal am déet giddu secte boobee nag dëkkoon ak xale bu jigéen bi am fukki at ak ñeent sans accord ay waajuram gannaaw ba mu ko tànnalee boppam Daouda Ba moo takkal boppam sëy bi këram depuis ñaari at waajur bu góor xale bu jigéen bi nag saisir na moom ñii di gendarme yi bu sukkandikoo ci observateur yeneen xale yu jigéen ya nga xamante ni identifié guñu leen ñoo ngi fa Baba Malab nag mi ngi jamono ji may waxeek yéen en garde à vue gannaaw audition wam bi ngir lu ñeel enquête bi ba tey ci boobu lee xibaar lay des ak yéen ba tey ñu sonn lool booleek tiitange askan wa yeewoo ca village bu Sarengagne nekk ca Kolda mujj nañu am courage ngir dénoncer yu ñaaw ya nga xamante ne ni faux prophète boobee mu ngi ko fa doon def bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi lu ci gën a doy waar mooy mbirum xale bu jigéen bu ñu ko jàppee dëkk village ya nekk ca wet ba ñu koy wax Sare Daouda nga xamante ne dañu ko jël par force te neexul ay waajuram xale bu jigéen sax pa bu ko jur affaiblir lool xamante ne ni nëbbu la nakaram si lu ñu fokkarti doomam joojee ci ay loxoom te neexu ko ñu meex lool ci li ni mel yi nag euh, dañuy dénoncer faux prophète bi kenn ku fa dëkk nee na sax ngir amal fa seen diine boobee juróom benni bakkan rot nañu fa si noonee mu ne waajur bu góoru kookee di fay woote tey yónnent daa bëggoon a sacrifier benn doomu aadama ngir feetu tabaski waaye nag si foofee la kooka mu bëggoon sacrifier faatee Mbacké village bi dañu leen xam ci histoire controversée yi le depuis eh, ñaar fukki at di village bu dangereux eh, te ñëpp ragal secte boobee di secte Mbacké Ruuxu eh, si noonu ñu ne nag lu ñu ko teg loxo moom Baba Malab mën na fa jëlee boobule secte jàmm ñëwaat ci seen gox boobee di village bu Sarengagne nekk ci commune bu Mburuko département bu Médina Yoro Foulah leneen Cheikh Ahmadou Modou Kara Mbacké noorey nii daal dina yàddu ci mbirum policier bu ñu rajee nga xamante ne ni léegi millionnaire la gannaaw ba ko murid yi sotoowee ci ay ndimbal Serigne Modou Kara nag nee na tàmbalee ci yàlla dafa war ab jullit saa su ne su bëggee wax wala mu bëgg a jëf ba loolu weesoo la xam li ne mu ngi julli ci yónnent bi ak ay ñoñam di jaajëfal jëfal Bamba laata mi naan ñu signé woon càtt 1995 ci kanam kanamu Serigne Saliou Pacte doon ay soldaaru Bamba ba tax na nañu ko ñeme te doon ay gor ba tey rek karaane ñu fi jaar yëpp ak ñi ñuy wax ñëpp dara du si dara luy dara mooy fas yéene doon soldaaru Serigne Touba par la non violence loolu rek mooy dara moo xamle ko si noonee mu ne mënoo ni nag dangay toppandoo jàmbaar yónnent ca Badar te ñoom ñu doon dagg seeni ay bopp di sàndi te kenn daggul tey suñu ay bopp lu dul ay bunduxatal kon tey sant rek moom moo war boo yemee ci bunduxatal yi laata muy naan nañu leen gore jaayante ndax loo gis rek mu ñëw dafay jàll bu yendoo yi te du fanaan te ku ñu jàpp mbaa ku ñu rajee te nga yaakaar xaadimu rasul cant gu rëy la war doon ci yow te moom kara daf leen a ñee seen daraja yu kowe ya nga xamante ni daal dinañ koy am laata muy naan ko xamoon yéene ñan sàkku si yéen ay daraja ja yàlla nag ku tedd ki nee def bu ëllëgee euh, ca yowmal xiyaama mu dal di leen di jéggal ñoom ñi nga xamante ne nii euh, ñoo leen doon bundaxatal ndax ku xamul euh, fokk mu juum mu xam ko ci ab audio moom Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni ba tey rek si mbirum policier bu ñu summi di Pape Boubou Diallo moom nag Bougane gi Dany daal dina koy recruter ci groupe am boobee di Boeing Corporation SA su ko defee taalibe Serigne Modou Kara bi dina bëgg di xëy ci wetu Bougane Gueye Dany ci siège am bu nekk kër góor gi rax si dolli dina jot même payoor bi mu doon jot ba mu nekkee ci police bi laata loolu may nañu ko moom Pape Boubou Diallo ñaari terrain nuy benn bi ca Touba beneen bi ca Daaru Muxti ba noppi murid yi def numéro mu Facebook ngir ñu dimbale ko ci eh, koppar ak opération de collecte de fonds bu ñu lancé eh, nga xamante ne ni bés boobee ñu ko lancé jot nañ ko see dajaleel fukki million si suñuy koppar lu waral nag ñu génnee Papa bu Diallo ci rang police gi ci fàttali mooy lu mu abandonné woon postam dem di ziar eh, Serigne Modou Kara ca Palais Djily Mbaye waaye nag moom moomee ex policier bi xamal na leen rëccuwul ci lu mu def ndaxte euh, sëriñam ba moo ko gënal police ba tey rek ci mbirum policier bi sukkoon di ziar uh, ki nga xamante ne ni moo di Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni di Pape Boubou Diallo uh, te ñu génnee ko ci rangu police gi ndax li nu mel gannaaw ba ñu ko summee uh, ngir wane nag seen solidarité ñoom murid yi dañoo tàmbale benn campagne de collecte de fonds ngir dimbale ko ci Facebook la ñu publier numéro moom Pape Boubou Diallo ngir dimbale ko ci koppar bu wees loolu may nañu ko ñaari terrain yi benn bi Touba beneen gi euh, Serigne Dame Mbacke di doomu Serigne Mourtada Mbacke moo ko may benn terrain bi euh, beneen bi Serigne Mouhamadou Mahfouz di doomu euh, Serigne Mouhamadou Moukhtar Mbacke moo ko ko may bu ñu sukkandikoo ci ceddu murid c'est-à-dire li nga xamante ni mooy collecte de fonds bu ñu ko lancé la ñu ko si jotoon a dajale la fukki million ci suñuy koppar ak xëy ga nga xamante ni lépp murid yi ñoo ko ko dal di defal ma wax ci xeexu ba banditisme bi braqueur yu gën a màgg ci Sénégal daal dinañ leen di teg loxo gannaaw ba gendarmerie jàppee chef gang bi nga xam ne moo doon sabab braquage yu bari yi ci Sénégal depuis njeextalu atub 2019 bi investigation yu ñu def tax na ba ñu découvrir ne groupe boobee jot nañoo mëne ay action criminelle ca région bu Louga waaye itam Diourbel Thiès Kaolack Kaffrine Tambacounda ak Kolda ñoom ñoo ñee jot nañoo sax récolté lu tollook 207 cent mille francs CFA ñoo ngi leen fekke ak ay fusil ay pistolet ay coupe-coupe auto moto lu toll ko euh, juróom-ñetti fukk ak benn nag ak fanweer ak ñeenti xar ñaar fukk ak juróom-ñetti euh, bëy ak yeneen ak yeneen yu bëri ya nga xamante ni fekk nañ ko ak ñoom ñooñee xibaar bu neex daal dinay tàbbi si étudiant médecine boo amee place yi médulaire di Sadio Ousmane Diédhiou jéego yu ñu si doon dox yëpp nag daal dinay yemb njiitu réew mi Macky Sall nangu na jël en charge frais yëpp si traitement bi ak évacuation bi yëpp lépp lépp di téeméer ak ñaar fukki millions si suñuy koppar bu ñu sukkandikoo si patron COUD di Maguette Sène amoon ne sax Sadio Ousmane Diédhiou dinañ ko évacuer soo moytuwul démb ci àjjuma ji la xamle woon rax stade yi jotoon nañu ko dajaleel eh, juróom-ñeenti fukk ak ñaari millions ci suñuy koppar ku de joxe woon ci fukki millions eh, Sadio Ousmane nag dootul fajoo ci hôpital parisien bu ñu ko bëggoon yóbbu eh, gannaaw ba nga xamante ne nii ne dañoo am beneen offre ndax hôpital parisien boobee ñu ngi leen facturé woon ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti millions ki nga xamante nii nag mooy benn compatriote médecin bu nekk Bordeaux di cardiologue Cheikh Béthio bi gi ñu naan ko Khadim Gom mi nga xamante ne ni moom moo leen proposé beneen offre nee na ba mu dëggee affaire bi daa ne rek en tant que citoyen sénégalais mënu see croiser les bras ba tax moom it mu defar leen offre bu meilleure ñu wax ci réeru jaari sew bi waajuram bu jigéen ak rakkam bu jigéen gulleet ñu ci addu ci mbir mi ca Malikunda waajuru jaari nag nee gisul lu gën a métti li boole kook ay jooy lu métti lool tey naan méttit lay sentir di koy dund laata muy xam ne ni jaari sax daa prévoiroon ñëwaat Sénégal bu jëlaate vacance si noonu ne la xam leen ni jaari amul woon lenn lu ko métti la nga xamante ne ni mën na expliquer disparition wom bi te dara ñorul ko woon lu dul jàng réussir dimbale boppam ak famiyam laata muy naan jaari fu muy mën nekk ñoo ngi ñaan mu feeñ ndax ñoom ñoo ñi lekkatuñu naanatuñu te it nelawatuñu te sonn nañu ci xaar bi ba mu noppee rakku jaari bu jigéen bi nga xamante ne ni sax mineur la moo si ko dal di feelu dal di xam le ni jaari manqué na ko lool te da ko bëgg lool te moom moomee bu sañoon tey mu nekk ci wetam di kàddu yu doy waar te daw yaram Euh, bés yi jotoon nañu ab xibaar di ab audio buy circulé ci réseaux sociaux yi rawatina ci Twitter añu si euh, xamle ni jaar yi gis nañu ko seen et àndale ko benn photo jaar bu mu ànd ak benn xale bu góor euh, xibaar boobee nag dara amu ca ndax ba jamono ji may waxee ak yéen gisaguñu étudiante sénégalaise bi di jaari Sow te it consulat bu Sénégal ca France daa dinay si réagir ne ñu ngi weddi boobu les rumeurs ñuy naan gis nañu jaari Sow lu ñeel nag euh, photo boobee ñu àndaleeg euh, ñu fësal jaar yi ànd seeg benn xale bu góor euh, photo bu yàgg la photo ba nga xamante ni sax moo jiitu réeru jaari wi te xale bu góor boobee mu ci àndal moom it mi ngi jàngee ca prestigieux lycée Louis le Grand bu Paris di fa nga xamante ni fa la jaari di jàngee rax si dolli mook jaari ñoo bokk it benn résidence bu ñu dëkk moom it nekk élève bu exemple te xarañ comme jaari sow te nekk na tamit ka nga xamante ni bu loola jamono ji ci wëru ba di jaari Sow zo di étudiante bu mujjee sa ki nga xamante ne nii moo di Diary Sow daal dina xamle lu am solo moom nag nee na moom ak jaari Sow ñoo bokk benn métro bu ñu jëlee Toulouse ba Paris Montparnasse ni ki dibeer ñetti fan ci weeru janvier bi ñu nekk li mel nag tax nañu njort ne dibeer boobee kon Diary Sow ñibbi na ca résidence ba mu nekk foofee ca Paris xaritu jaari sow tamit daal dinay euh, xamle euh, xibaar yi mu mujjee am ci xaritam bile disparaître euh, moom moomee nag di jay Jaynaba Ndiaye nee na ajjuma si ay booru juróom-benni waxtu si ngoon la doog yëg xibaar bi si bañu ko woowee woon téléphone di koy laaj ndax amul ay nouvelle xaritam boobee di jaari sow mu xamal leen ne depuis fukki fan ak ñett si weeru décembre la ko gëj a dégg te jaari moo ko mujjee bind bataaxal mu woo ko téléphone mënu ko jot ah, si noonee mu ne ñoom ñoo ñi ñooy famille yu jaari foofee ca France di ay étudiants étrangers sénégalais eh, ba tax na ñoom ñoo ko mën a taxaw te moom jay na ma ah, diggante moom ma jay na ba digganteem ak kii di jaari sow weesu na li nga xamante ne ni moo di xaritoo seetkat bii di Selbé Ndom daal dinay àddu ci réeru Diary Sow bi di xam ne ni ñëpp euh, jàkk ndaxte euh, boo doonee yaay moom amul kii amul kee doom doom la rek ba tax na ñoom ñëpp euh, jaaxle si li nga xamante ne ni moo di réeru Diary Sow bi ndax Diary jamaale ci Sénégal ba loolu weesoo daal di xam ne ni si li mu gis Diary mi ngi dund te mi ngi si jàmm laata muy naan ñaari góor ñoo ko kidnappé te ñoom ñaar ñoo ñëwee ko sax Selbé nee na ñu ngi jàppante seen biir ndax déggowuñu ci ay kàddu si ne la ne ay waajuru jaar yi sow nañu bañ a toog te génne li nga xamante ne ni moo di sarax Sanex daal dinay àddu tamit si réeru jaar yi sow bi fësal si njàkkare ba mu ci àndal moom it laata muy jox ay conseil waajur bu jigéenu jaari sow comédien bi nag nee na Sénégal fii am na ñoo xam ne nii bu ñu leen yóbbulee yére jaari wala dàllam bu mu mësa a sol ak turu waajuram ñu leen wax ana si lan la jaari nekk ndax yàlla am na ñu mu ko may fii si Sénégal te xam-xam yooyee yëpp am na fii mu conseillé ko Sanex moom waajur waajur kii nga xamante ne nii mooy waajur bu jigéenu Diary Sow ngir suñu étudiante sénégalaise bi mën a feeñ gannaaw ba nga xamante ne nii sénégalais yëpp jaaxle ci réeram wi ba tey rek ngeen di teelu buzz de la semaine fii si Dakar buzz mu disparaître moom it depuis ñaari fan ci weeru janvier Léna Guèye ay atam toll ci fukk ak juróom-benn di étudiante en hôtellerie daal dinañu koy mujjee gis bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi bës yi ñu génn ab ngoonaa ngoon la xibaar bu neex bi jib ne Léna Guèye daal nañu koy gis ci jàmm ak salaam. su lilante ay mbóot lañu nemmeeku ci ancien directeur général Dakar dem dikk bi di maître Moussa Diop ak ku ko wutu jamono ji di Oumar Boun Khattab Silla gannaaw sortie bu actuel directeur général bi def ex patron wu Dakar dem dikk bi daal di nay woote jannoog taskatu xabaar yi comme na mu ko xamle woon ci ba muy tontu nag kookee wutu ko la dal di xamle ni ki nga xamante ne ni eh, moo di Boun Khattab Silla daal nay eh, jël ñaari sëriñam ya nga xamante ni daf leen jël euh, comme ay chargé de mission di leen di jox ku si nekk euh, téeméer ak juróom fukki litre du carburant weer bu yàlla sàkk rax si dolli euh, moom DG Dakar dem dikk bi ci boppam oto ba muy dawal mi ngi jar juróom-ñetti juróom-ñetti fukk ak juróomi million si suñuy koppar te rek moom moomee nee na juróom-ñetti fukk ak benn million la ko bàyyil ci kees bi ba muy dem mu xamle ko moom maître Moussa Diop ma wax ci mbirum Hiba Thiam bu ñàkk bakkanam ci soirée privée ba ñu doon amal ca di ci waxtu bi ñuy xaarandi datu délibéré bi di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weeru janvier Dame Amar ak i ay ñoñam daal dinañuy génn ci kaso gi gannaaw ba ñu leen bàyyee bàyyi bu ndëgganeku bu leen attekatu tribunal correctionnel bu Dakar ak Cordel gannaaw sàkkute fu ñi nga xamante ne ñoo di seeni avocat yi si ba ñuy amal procès bi ni ki àllarba bu weesoo loolu parquet bi juróom weer teg ci seen ndodd ngir association de malfaiteurs détention de drogue en vue de la consommation personnelle violation de la loi sur le couvre-feu et non assistance à une personne en danger ak tamit police bi di policier bi di Lamine Diédhiou mu ñu interpellé ngir corruption passive et de violation du couvre ba tey rek ca almadi lay des ak yéen ak dëgg bi bi lay yoon ci ay doomu ancien ministre yu ñu teg loxo ak seen contamination ci Covid 19 bi gannaaw seen piscine party ba ñu fa doon amal ci waxtu couvre-feu partiel bi foofee ca almadi gendarmerie bu Ngor nag ba mu fa wàccee la fa fekk lu tollook fanweeri doomu aadama mu bokk ci ñaari doomu ancien ministre bi di Robert Sagna ba ñu so noppee eh, laata juróom-benni waxtu si ngoon ñoom. takk der yi euh, ñu daal di tamit dakkal benn anniversaire bu ñu doon amal ci benn villa bu nekk ca wet wa euh, juróom-ñetti doomu aadama nekkoon ca ba ñu leen yóbboo nag euh, cave palais de justice ñoom ñëpp xamuñ woon doomu ancien ministre socialiste yooyee dañoo amee coronavirus bi ñoom ñoo ñee waroon a voyager bu yàggul dara defoon nañu seen test covid 19 ba noppi ba ñu leen teewee la seen résultat yi ne la ñu leen yóbbu hôpital Dalal jàmm bu géejewaay laata benn soxna bu ñu testé moom it mu positif di leen fay rejoindre ñu jël ñasa des mettre leen en quatorzaine ca ay hôtel yu nekk Mariste bu ñu sukkandikoo nag si Dakar ak ci ñoom ñoo ñee yoon doon topp ci ñaari dossier yooyee mujjee nañu leen bàyyi ñoom ñu ñibbi seen kër yi waaye locataire kër ga doon amalee seen piscine party bi dañu ko war toppandi ba tey gannaaw loolu désinfecté nañu cave tribunal tribunal bi eh, dal di test tamit ay agent wu administration eh, pénitentiaire yu nekkoon en service bés boobee waaye seen test yi dafa négatif eh, ba ñu dooraat normalement seeni ay activité kenn sañoy liggéeyee ca télévision Futur Média daal di lay takk ay dëbësam kookee nag du kenn ku dul Adam Touré mu présente présenté bataaxalu tekki ba ndombal tànkam ni ki talaata bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi bu ñu sukkandikoo ba tey ci xibaar yi ñu si jot taataan taskatu xabaar boobee moom mu jël décision wam ngir jógee ko TFM ci fàttali Adam Touré DTV la jógee ko woon laata muy rejoindre groupe Futur Média def na lu ëpp at. mariage yu doomu Ahmed Khalifa Niass bii di Salma Niass def na buzz ci toile sénégalaise bi ndax nu xew mi simple mu doon doomu milliardaire Salma Niass marié na te ki mu bëgg di koy sëyal tey joxu ko benn yoon may bu njëkk di décision bu waajuram bu góor Ahmed Khalifa Niass jël moom Salma daal di ko koy nangul nu Salma simple nag frappé na ñu bëri ci réseaux sociaux yi ci mariage am boobee ay robe yu simple la ca solo donte sax am na moyen yi ngir def buzz comme des yi defee comme ñu si mel ni Soumboulou ak mbacc Ndiaye yu laaj ay millions may bu njëkk ak bruit bu dul jeex ci seen mariage yi. ma wax ci mbirum Assane Diouf ak tekkat bi moom nag Assane Diouf daal dinay xamal président wu chambre ba ne kontaanul ci boppam gannaaw ba mu xam leen moom Assane fiyeerul ci boppam ndaxte bëggul tamit a bés ñëw ay doomam génn ñu leen di joxoñ naan leen seen papa moo dàkk saaga mu xamle ko ca baar ba laata mi yokku ci ay kàddoom ni mi ngi jéggalu bu baax a baax ci saaga yi si noonu mu ne nag ci mbas mi njiiti réew mi daa waxoon ni l'heure est grave si waxtu na moom it mu gis ne l'heure est grave ngir mu def euh, vidéo wam boobee euh, Assane Diouf daal dinay euh, tamit ne dootuñu ko dégg mu yëkkati ay saaga tey leeral ni soutien de famille la ndax nee na waajuram bu jigéen mi ngi dund te daa demoon États-Unis ngir mën a jàppale famille yam ci ba ñu koy teewlu Assane Diouf daal dinay signaler tamit ni ancien ambassadeur bu Sénégal ca États-Unis di Babacar Diagne yónnee woon na ko ab bataaxal di ko siy tuumaal wàllum terrorisme Halima Gadji ñu gën koo xam ci turu ba Mariam Dial ci maîtresse d'un homme marié daal dinay àddu guléeta ci vie amoureuse am rawatina déception bu mu ci njëkk am di ba ko ex copain wam bi waree mu nekk célibataire am doom bu jigéen Mariam Dial daal xam xamle ne waajur bu góoru doomam bu jigéen boobee am fukkiat ak benn daf ko war ci noonu mu ne déception euh, ba nga xamante ne ni mooy déception amoureuse bu gën a ci baayu doomam ju jigéen ji euh, la ko rek euh, daal di euh, dundee si noonu euh, mu ne sax lépp mu ngi doon jaar yoon amuñu woon benn problème ba ñu doon waajal seen mariage mu jékkee jékkee rek daal di koy woon gannaaw. leneen gannaaw ba ñu ko bàyyee bàyyi ba ndëgëneku mer ëpp ko doole soxna Pa Diop ISEG bi woon di ay setu Seydi daal di ndey meyaat boppam riira ah, moom moomee nag def lu a dem jubbali ca immeuble bu nekk Sacré-Cœur nga xam ne moo koy wutaleek Mamadou Diop ISEG ngir réclamer li mu moom ci kanamu ñëpp a ah, néew ne nag ñu daal di fay wéccante ay kàddu yu ñaaw lool laata sax xeex di fay juddu ah, gannaaw ba leen ay setu Seydi xamal leen xam nañ ne moom moom kër googee moo defar plan wam indi maçon wam teg fa ay kado Saloum te ñoom ju fa dëkk ñoo ko gën a xam seen xuloo boobu ak xeex ba sa judd yëpp dañu ko filmer daal di koy biral ci réseaux sociaux yi. Ah, ba tey rek ci li nu mel Aïssatou Seydi daa dinay adduwaat ci kër ga koy wutaleek Mamadou Diop ISEC moom nag daa dinay xamle ne sax moom ko boroom këram gi dañoo defoon bien commun Aïssatou Seydi ba loolu weesoo la daal di xamle ni ah, dafa sonn si mafia bu ko topp Mamadou Diop jiite ko di leen di fay ngir ñu koy topp mu def ñu filmer ko biral ci réseaux sociaux yi ah, ba loolu weesoo la xamle ni titre foncier wu kër googe moo ko moom moo ko jënd tabax ko meublé ko depuis atub 2018 wuuteeg lu ñuy wax moom moom sax nee na ba mu amee master de en ressources humaines dafa waroon a dem Allemagne wéyeen njàngam waaye daa bàyyi lépp ngir jàppale kii di boroom këram gi Aïssatou Seydi daal dinay waat ni moom moom kër googee nekk Sacré-Cœur 3 ndax moo ko jënd ci njëgu téeméer ak juróom fukki million ci suñuy koppar laata mi naan moo jënd tamit ci atub 2012 immeuble campus 3 lu toll ak ñaar téeméer ak ñaar fukki million ngir compte borom këram gi si noonee mu ne Diop nag euh, mën koo topp ngir koo topp ngir xaalis bu ma ko may laata muy naan Diop da koo bett comme nu mu bettee sénégalais yu bëri euh, ba mu ko yóbbu ci yoon ngir fokkart ci ay loxoom këram googee nekk Sacré-Cœur 3 euh, si mu ne moom Aïssatou Seydi lu ko gënaloon mooy Mamadou Diop suul ko wala moom mu suul ko daa jël décision ngir dénigrer ko waaye moom su amoon la nga xamante ne moom moo ko ko amoon ko bëgg a attaqué euh, kii di Mamadou Diop euh, ISEG dina jaar ci néewam moom Aïssatou Seydi laata muy jot Mamadou Diop ndaxte euh, daf ko tegoon fu sori lool bu weesoo loolu ñoom ñaar benn doom bu jigéen képp la leen yàlla dénk. 10 000 problème daal nay addu si dese waajuram bu jigéen dal di lancé ab message bu for ab video bu gàtt la rappeur bi def di si xamle ne mi ngi mastawu coono sénégalais ya nga xamante ne li ñoo wàccoon si mbedd mi yëpp apour euh, ñu mën a comprendre ne dafa am lu tax ñuy wàcc ci mbedd mi euh, ba loolu weesoo la ne nag mu ngi nuyu takk der yi waaye itam di nuyu euh, garde pénitentiaire yi ak tamit ñu ko doon dimbale di koy ñaanal laata muy xam ne ni mi ngi jaale boppam di jaale yaayam di jaale tamit képp ku yaayam génn àdduna ndax bakkan bu ñam dundu dina ñam dee si noonu mu ne mi ngi ñaan sénégalais yépp nag ngir rek lu état digle ci couvre-feu bi ñu koy jëfee ba mu mot sëkk ma xuusa si tàggat yaram jël roppalaan dugg ca Côte d'Ivoire ba ma koy doore addu ci mbirum euh, ba ak vidéo intime bu ñu fësal ci réseaux sociaux yi euh, mu nekk ak benn soxna ci kaw laal soxna soo xamante ne ni nekkul jabaram li ni mel nag daal nay def buzz ci euh, réseaux sociaux yi si noonee candidat présidence de la fédération ivoirienne de football daal dinay réagir ci intermédiaire benn membre bu bokk ci équipe de campagne bi di Marius Komoé du président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire bu ko weddi nag euh, ba noppi euh, dal di indi ay explication moom nag nee na euh, gis na vidéo bi waaye du sexe stop publicité ba nga xamante ne nii Didier Drogba mi ngi koy def la ngir sensibiliser ci Covid 19 bi ngir compte benn société européenne te publicité boobee sax nee na génnagul si noonu mu ne Drogba nekkul si yëfu ñàkk fayda pub boobee nag njox nañ ne bu génnee coow li nga xamante ne nii judd na ci boobule vidéo ñu biral si réseaux sociaux yi dina rek euh, dal di fay. ba tey ci mbirum ex international ivoirien de football bii di Didier ba euh, moom nag daal dinay annoncé tàggoowam bu métti bi ak kii di Lal Diakité di soxna ba maliyenam boobe euh, gannaaw ba ñu dundee ñaar fukki at euh, ci compte Instagram nag la xam le ne tàmmul di wax ci vie privée waaye spéculation média yi tax na ba muy dëggal ni gannaaw ba ñu nekkee ñaar fukki at moom ak Lal jël nañu décision dal di tàggoo at mi ñu génn mu bind ko moom Drogba laata muy xamle ni seen objectif principal euh, mooy seen doom yi ñu protéger leen ak vie privée famille bi euh, li ni mel nag Drogba mi ngi ko xamle ci compte Instagram euh, gannaaw vidéo am bekk benn soxna bu ñu fësal ci réseaux sociaux yi. ma wax euh, ci suñu international sénégalais bii di Sadio Mané doomu Bambali bi moom nag chantier ba muy euh, amal ca village am euh, mi ngi avancé bu baax a baax li koy firndeel bokk na si photo ya ñu ca jël fësal ko ci internet bi bokk ci yooyu ngeen di gis ci écran bi chantier boobee nag Sadio Mané mi ngi ci def ci xayma ñaari milliards si suñuy koppar. Balla Gaye 2 ak Aziz Ndiaye daal dinañuy dem ca bërëb bu sell wa di Makka ngir umra ji siyaare ci yonent bu tedd bi ñoom nag ñoo ko fësal ci seen photo ak vidéo yu ñu jël ba ñuy départ comme nu ngeen leen di gisee noonu su ma noppee ci mbirum Balla Gaye 2 ak Aziz Ndiaye mu umra ji damay àddu ci mbirum ki nga xamante ne ni moo di Double sa di waajur bu góoru Sa ak Balla Gaye 2 moom nag feebar da ko tëral def na benn weer ba ko ñenn suñu ñuy woowee téléphone ah, Double Less daal dinay dëggal ni dafa tawat def na weer laata muy leeral ni médecin yi consulté nañ ko xamal ko ne ah, fatigue générale la maanaam coono wu tar ah, ci noonu mu ne soxla na nag ñaanu sénégalais yi yëpp di bàyyi lépp ci loxo yàlla ñu ngi koy ñaanal mu wër ak jàmm ak salaam mu nga ko filee la koy ndar di leen jaajëfalit yéen ñu doon teewlu di jaajëfal Amadou si mu faree ci caméra gi di wax leen dig daje yi di leen ñaanal week-end u jàmm ak salaam ñu bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen ak yeneen. oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di plus 1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mën mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis. Monsieur Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna.